gis nañ ne amee nañu jàngoro jooje seen yaram wi lépp ay picc la te nag mën nañoo wax ne du caaroy kese ndax ca mbuur nemmeeku nañ ko fa nemmeeku nañ ko tamit ci ñi nga xam ne ay mool lañ duggoon ci géej gi sa Saint-Louis yéen a kaay gi de la Tribune nee na mbir mi kay jamono ji soo mooy tuulee jéggi dayo lay def ndax xayma nañ lu toll si juróomi téeméer ci ay nit ñoo xam ne seen yaram wi lépp ay picc la def nañu ay prélèvement maanaam ay test yoo xamante ni ñoo ngi xaar résultat yi waa kër docteur ci Sénégal defal nañu leen test yéen a kaay gi de nee na gaa yi sax dañoo njortoon ne Ebola wala nag beneen xeetu feebar waaye nag loolee lépp ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur daat nañu koy dàq li nga xam ne mooy prélèvement yi ñoo ngi koy xaarandi dañoo njort sax ne dafa am benn produit boo xam ne dafa nekk ci biir géej kee gars yi doon nañu ko jéem a wër waaye nag wër nañu ba sonn doon xool ana lan moo waral mbir mi waaye nag xamuñu ko yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñoo amee wopp jooju seen yaram wi yëpp amee picc dañu leen a ber dañu leen a quarantaine ñenn ñi ñoo ngi leen sol ca Essane Galandou Diouf yéen a kaay gi na ñi nga xam ne ñoo dëkk Thiaroye dëkk Saint-Louis dëkk Mbour seen bopp ubbu na jaaxle la ñu def ci jàngoro ji ndax xamuñu ana lan moo ko waral yéenekaay gi de la Soleil nee na bëri na ay nappkat yoo xam ne amee nañu jàngoro ji maanaam seen yaram wi lépp ay picc la ber leen defal nañu leen ay test yéenekaay gi de Les Échos nee na lu jëm ci wàllum napp tere nañ ko ci caaro yi yéenekaay gi de Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci émigration clandestine bi def nañu bilan bi def nañu xayma bi 2014 ba 2020 maanaam fukk ak juróom benn junni nit ñoo xam ne faatu nañ ci ndox mi yéenekaay gi de la Témoin nee na Palestine ak ndaw ñi nga xam ne ñoo ciy faatu bëri nañ genn xeetu bëri goo xam ne tax nañ jiitu réew mi di président Macky Sall taxawal benn kuréel conseil national pour l'insertion et emploi des jeunes yéen kaay gi nee na Macky Sall sàkku nañu jox ko cartographie ndaw ñi nga xam ne ñooy sàkkoo am liggéey yéen kaay gi di Vox Populi ñu fekk fa waa Greenpeace ñoom nag daat nañuy mer ba maarale taali naqarlu nañ accord de pêche yi nga xam ne état bu Sénégal signé na ko ak waa Union européenne ñoom sax li leen gën a jaaxal mooy Union européenne nan la ñu mën a bëggee jënu Sénégal ba pare bëgguñu askan askanu Sénégal ndax ñi nga xam ne ay Sénégal lañ nekk bitim réew ñoo ngi leen fay bu ndaxataal di leen di indi ba tey ci biir yéenekaay gi collectif 480 ñoom nag daat na ñuy wax ni ñi nga xam ne ñooy faatu ci géej gi ñoo ëpp fuuf ñi coronavirus ray ci réew mi te gis nañ ne état bu Sénégal waxu ci lenn yeeyu ci yàbb ci loolee moo leen metti yéenekaay gi de la Soleil xëy wax ci lu jëm ci wàllu mbay mi nee na ren ji dana ñu def record boo xamante ni musta am ci réew mi lu toll ci un million cent millions de tonnes yoo xamante ni toftalu na ci li nga xam ne Sénégal doon na ko produire ci lu ci wàllu wàllu mbay mi njëgu gerte gi kilo bi daan nañu koy xayma deux cent cinquante franc yokku nañ ci quarante franc ren ji yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllum njënd ak njaay mi maanaam commercialisation bi danañu ko commencé ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu fekk fa Alassane Ndiaye Diop économiste wax na ci émigration clandestine ak ban taxawaay la état bu Sénégal war a taxaw ngir ndaw ñi bàyyi jël gaal gi moom daat nay wax ne lu soxal wàllum géej gi napp gi pêche bi ci réew mi il faut am beneen taxawaay bu mu ci taxaw ay réorientation wax ci ressources budgétaires yi nga xam ne war nañu ko jël jagleel ko ndaw ñi diagnostiqué bu baax a baax ana lan moo tax ndaw ñi di jël gaal gi ci yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ci waxtaan wu yaatu mu séq ak journaliste yi la ko xam xamle yéenekaay gi di Rewmi Quotidien wax na ci lu soxal wàllum politique ak wëlbati gi nga xam ne wëlbatiku na ko ak Macky Sall mi nga xam ne woone a Seck ginnaaw remaniement bi nga xam ne def na ko di woo ñenn ci opposition bi journal bi nee na ana ban taxawaay la Karim Wade ak Khalifa amee ci lu jëm ci wàllum politique ci réew mi ndax ñaar ñi ay kàngam lañu waaye nag ba léegi dafay am lu lu ñuul ci soow mi journal bi daal di wax ne ki nga xam ne mooy Karim Wade ay avocat wax nañ ne mën naa bokk ci ay élection ñi ànd ak gi ñoom nag nee nañu Karim Wade munta bokk ci élection te fuyul xaalis bi nga xam ne moom la ameel Sénégal bu dee Khalifa Sall ba léegi nii am na ay ñol-ñol ci lu jëm ci wàllum yoon te nag bu ñu xaar benn yoon Macky Sall am na séelée na loolee sax Macky Sall mën na see sukkandiku ba négocier ak ñoom yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na am na loo xam ne ñoo ngi koy laam-laamee ci réew mi maanaam duo Khalifa Sall ak Ousmane Sonko duo boobe nag su amee maanaam musiba ma ba kumba gu rëy lay doon ci Macky Sall ak ñi mu àndal bu ñu sukkandikoo ci journaliste yi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum càmbar politique daal nañuy wax ne coalition Ousmane Sonko Khalifa Sall bu ñu ko tegee ci réew mi caaf xëm yéen kaay gi di Vox Populi nee na Idrissa Seck tey jii la koy samp ca conseil économique social environnemental ginnaaw fukki at ak juróom yoo xamante ni Idrissa Seck nguuruwu la yéen kaay gii di Walfadjri xëy wax ci Aminata Touré ak nañu lool Macky Sall waaye nag ginnaaw bi ñu leen génnee fa ñu leen tegoon la ñu commencé am ay jafe-jafe ak Macky di ko yàq musiba ak mbelengaan jamono ji sax mën nañu leen a jàppee ay opposition waaye nag journal bi nee na bis bu ñu fi taxawalee ab alliance boo xam ne anti te bu boobaa caaf mën naa ay jafe-jafe mën nañu koo andil Macky Sall yéenekaay gi de La Tribune ñu xëy fekk fa Aïda Ndiongo muy tuumal Abdoul Mbaye nee na Abdoul Mbaye da koo ab lu